moon waxoon ni ci deuxième partie bi daañu waxtaanee coow li ngeen gis fan yii ni moo lëmbee Sénégal parce que Sénégal moom fan yi ñaari mbir rek ko lëmbe lan la Macky Sall nar a wax ci discours am bi nga xam moom la annoncé ci dimanche ji 25 juin 2023 ak également coowu la euh, soxna Aïda Seck euh, ak euh, Lassana Gagny Sakho ak Madiambal Diagne ci terrain bi nga xam ne moom moo nekk Ngor Euh, te yéen ñëpp ngeen gis ni euh, moom am na lu mu ci wax am na ay médias yoo xam ne également euh, ñu ci mel ni TFM ak wal Walfadjri aussi invité na ko moom soxna ay Aïda Seck naam laa seen a gaañi saaxoo presse bi ñi jéem ñëpp jot ko nangu ci wax man nag dama jàpp ne ku ne ci dëgg waroo ragal parce que su fekkee ne nga jàpp ne yow yaa ne ci dëgg ci coow loo xam ne yow la bu ñu la woowee war nga mun a ñëw joxe sa version.

bala ñuy ñew ñun def suñu commentaire ci li nga xamni mom moy xew-xew bi donc soxna ayda ñing lay ñing lay nuyu euh, di dila wax ni am nañ mbégte toog ak yow waxtaan ak yow ci li nga xamni mom moy ciowal euh, euh vraiment terrain boobu nga xamni mo moo nekk ci ngor te yow nga euh, jëndon ko depuis 2001 suma ma euh ayda est ce que nañu rapidement am un résumé de li nga xamni mom moy ciowli nga xamni mi ngi nekk sa digënté ak euh, Madiambal Diagne wala soxna Madiambal Diagne parce que Madiambal Diagne feem yooyu lay def lépp lu muy jënd léegi presque ci jabaram la koy def turam wala mu def ko ci turu doomam euh, léegi nag yow mi nga xam si yaa moom sa yëf te ñu bëgg la jaay doole ñëpp gis nañ loolu dañu bëgg nga wax euh, sénégalais yi li nga xam ne moo ci am ci tënk bu ko defee bu ñu amee lu ñu lay laaj ñu laaj la ko. salaamaaleykum jërëjëf Dame maa ngi lay sant di la gërëm. jërëjëf sama mbokku lébu yëpp ñi nekk sama gannaaw maa ngi leen di sant di leen gërëm muy tànk Ngor Wakaam Yoof ba Rufisque ak yéen bon euh, problème bi ma am mooy en 2019 l'ASENA on nous a présenté ensemble pour que ñu def benn projet immobilier benn essai et je l'ai fait confiance et man architecte bi ak moom on est parti sur les lieux et à la limite, euh, le ñun le parce qu'à l'époque nous avons financé. nous financer man damay indi sama terrain 300 mètres carrés je mu indi financement bi architecte bi def ça veut dire euh, croquis des def et def la construction c'est comme ça que ça s'est passé c'était avant les élections mais à ma grande surprise une fois que nous euh, nous waxoon l'architecte, muy architecte bi muy def liggéeyam euh, entre temps dama mais à mon retour on a vu que la SENA, na saako yi daal bëggatul def projet Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé parce qu'il était dans les élections il nous avait garanti que nous avons fonds yi ci et l'architecte qui est Moussa, il avait déjà fait les plans, il avait déjà fait euh, les 3D, il avait déjà fait son travail. Malgré que peut-être ça, xeyna lim ko ce dessel nako Bon. Sur ce, la il faut que nous dem signer chez un notaire parce que pour faire essayer, il faut que nous dem notaire pour que notaire signe signer pour que je puisse céder ça veut dire il faut que je me cède ko terrain de 150 mètres carrés pour que je me mën un terrain parce que c'est un lot qui tout m'appartient Je maa en 2001 pour que je me def essayer il faut que je me cède ko terrain et que non, me cède un terrain bi pour ñu def essayer mais bi ma cédé terrain bi terrain, à ma grande surprise j'ai vu que là, dafa a fait d'autres projet le projet de parce que jour où je signé, j'ai vu la société Soninkara, SCI Soninkara. Mais moi, j'ai pensé que c'était la, la SCI qu'on a signée. C'était juste pour confirmer. À ma grande surprise, il a dit que c'est après que j'ai su que non seulement on l'a signé pour lui céder le terrain, mais le projet n'aura pas lieu. C'est depuis lors qu'il a changé complètement de comportement, de façon de faire. War quoi War nek benen nit. C'est en ce moment-là que je l'ai vu sur le terrain. Je vous n'avez pas le droit d'être sur le terrain. Je le terrain m'appartient. Il n'est pas question que le terrain t'appartienne. Là, ce n'est pas possible. Le terrain, ne pas. un partenariat ensemble partenariat on a tout fait on t'attendait parce que il y a maître Youssef Kamara, qui était l'avocat de de l'ONAS mm-hmm et il lui avait parlé personnellement. C'était mon, euh, euh, général de à l'époque. À l'époque. Et que man tamine moo mon avocat par hasard. Hmm. moo doon mon avocat des différentes escroqueries C'est en ce moment-là qu'il a parlé, ils ont parlé ensemble et Youssou a peut, témoigner, ça veut dire il lui a dit que c'était pour un une euh, SCI un projet immobilier et lui il était d'accord ça veut dire qu'il lui faisait confiance comme moi je lui faisais confiance comme l'architecte lui faisait confiance Mais mm-hmm. comme kilifa la xëy na lu muy wax dëgg problème mm-hmm. avant may dem sax dem pour signer je ne demal a voyage Il n'y signer a pas de problème parce que j'ai déjà parlé le monsieur il a démissionné même d'ailleurs de l'ONAS et depuis lors Lassana sonal na ma lool depuis loolu nee na terrain bi moo ko moi mais moom léegi est-ce que am na preuve euh, que daf la daf la jox xaalis euh, est-ce que jox na la xaalis. Euh, bu la joxee xaalis ana preuve par par quel moyen la la joxe xaalis ndax dafa am compte bancaire boum le la viréel wala dafa am chèque boum le signal, signeel wala ben décharge wala c'est-à-dire on aimerait savoir quoi parce que xaalis mon, ni ni bu ñu koy jokkalante. Euh, même sax mbokk ma bokkal ndey ak baay sax euh, bu ngeen jokkalante xaalis bu takk dafa war a am ay preuve que xaalis bi génn na. daam man depuis ma nekk xale laa takk sama ndigg hmm. yor ñetti kër sama kër yaay sama kër pap sama kër maam yor njaboot samay épaule de ce fait que xaw ma lenn lu dul liggéey doo ma dégg ci leen lu dul liggéey dañ naan escroquer dañu Aïda mais pas Aïda dem ci yëfu jàmbur. mom li nga ma posé ni dam ci dam ci damay damay damay sawar pour répondre ci parce que j'ai eu vendu d'autres terrains j'avais d'autres biens mais ba jugé ci notaire bi Moustapha Ndiaye sa mom notaire ba fa jugé ci lañu ñu gëj mais je pense que so démé ci notaire nga né da nga jënd notaire bobu war nga am reçu néna na jënd na war na ma jox reçu wala mu def virement bancaire man maa ngi appelé la sénat pour wane ne lolou mu ne wax na ko nako ko jox parce que la essayé jour bobu lay sogo a xam ne ne loolu ma gis ci table bi mooy essayé Soninkara jour bobu lay sogo a xam ne ne essayé boobu Lassana moko mom mais Balla Amar moo koy gérer. wala lu tax lu tax loolu pourquoi euh, moom mu defoon. Euh, ay ndiou njaajam lan lan moo waral. ay ndiou njaajam la woon. Mhm. parce que man comprendre ma dara Lassana la daan gis mom la daan wax. Jusqu'au moment. En tant que directeur général de l'ONAS, est-ce qu'il avait le droit de mettre en place ah, Je pense pas. Je pense que moi, il devait avoir honte. Je pense qu'il devait avoir honte. Ce fait qu'il y a une constitution normale. wala ci pays bu normal donc ci gàttal euh, immeuble boobu ngeen waroon a def. Mm-hmm. Euh, immeuble huit étages bi. ba léegi nii euh, fondation bi sax defaguñu non non seulement fond naa mais foqati nañu sama 150 mètres carrés. waaw c'est-à-dire que y a rien quoi. y a rien amul dara amul. dara amul te léegi nee terrain bi nga xam si da nga ko séddee woon ci partenariat partenariat bi te fu mu nekk te fu mu nekk nii nee euh, wax man dama bëgg moom mu indi preuve reçue. Mm-hmm. wala virement bancaire bu wax ne ne moom man jaay ko loolu. Mm-hmm. je l'ai signé parce que je lui ai fait confiance en lui pour un partenariat d'un immeuble. Mm-hmm. et il a rien fait de ça maintenant ce que je n'ai pas compris que le dossier bu faux. Il y dem ba tribunal. Euh, tribunal pris euh, une décisions. parmi les décisions euh, moi, que ne au moins pour bénéficier du terrain il faut que fay la 150 millions. est-ce que vous na la millions. Il faut que je ko au tribunal. Hmm, pour garantir pour garantir avant le le terrain de ce fait que des fois je ne sais pas comment marche aussi le tribunal parce que moi, quand j'ai mis le mur je ñëw ne man occupé terrain alors que moi, suis condamné en premier pour dire que Belanga il ne faut pas consigner 150 millions pour pouvoir toucher le terrain mais mon mur je mu def c'est la wax ne condamné alors que sama kër l'annexe jusqu'à présent. donc condamnation bi muy wër di la ko ah. c'est juste parce que yow mur boobu. et dafa ñëw ne dafay dugg ma ne ko doo dugg. ok loolu moo tax mu ne yow condamné. mu ne ma dama son terrain alors que lui ce qu'on lui a condamné en premier. Mhm. c'était euh, de verser au tribunal. une ah, consignation parce que le faux usage de faux et escroquerie était presque avéré.

La ah, procédure bi normalement le 5 euh, juin passé. oui jaa mais avec les événements qui se sont passés dañ ko repro ko deuxième chambre correctionnelle la nekk dañ ko avancé. ça veut dire le 12. ba le 12. waaw 12 juillet. oui ci la ci la aura a audience bi war passé. donc ça veut dire que l'affaire est toujours. pendante devant la justice. exactement mais léegi kon moom nan la mun a ban pexe la mun a def.

parce que sama métit yëpp ça vient de lui parce que warkat la du wax dëgg il fait comme s'il est bien alors que c'est quelqu'un de très très très très dangereux et mauvais laase na gàññi saaxu moom bëggatuma sax taxaw ak moom wala naan maa ngi jàkkaarloog moom di wax quoi que ce soit voilà donc donc ça veut dire que aujourd'hui situation bi loolu la terrain bi moom xam na ni moomu ko bi mu demee ba jaaxle mhm. xam ni procédure bi sukkoon na day ñàkk terrain bi mhm. léegi mu dem jaay ko Madiambal Diagne. waaw léegi pour mën a raxasu pour yaakaar ne mën na raxasu. ci pour yaakaar mën na raxasu parce que lu ma doon wax parce que Sénégal dafa tuuti dakaar dafa dagg lu ndaw à chaque fois que gis naa ne bëggoon na ko jaay keneen kooku dafa may woo wala mu am keneen ku ma xam. ma ne ko ah boo ci diggee de dossier bi est pendant au tribunal bu la ko jaayee de tu y aura des problèmes parce que jusqu'à présent justice. waxaguñu ne kenn jusqu'à présent justice kii waguñu jugé guñu

mais il est passé outre. donc démb rek maa ngi ciy waxtaan ak kenn benn pa mu ne ma man nee naa ko carrément sama ben xarit bu ko bëggoon jënd daf ko ne carrément bu ko sax jaxee wa koy laal parce que lebu yu duñ la mës a nga tabax.

dama tak sama ndigg jaar sama doole pour am li ma am pour ñew Sénégal mënon na tok fenen investir ko mais pour ñew Sénégal tekki et que teral samay waajur man kenn jënd lu ma di moom bu fekkee né mën na ma échange man dama tedd demb avant may xam ma jabal jaay dama tedd demb avant may ja xam jabal ma jaba jaay parce que mom bi ma xamee bay def reportage ci man bobu ay centaines de millions lañ ma jël et c'est passé à vous de juger ci liguey rek lañ ma xamee kenn xameewu ma pour def le fu ñak fayda wala di def leneen. donc maintenant légui euh faut peut-être la terminer c'est-à-dire euh, est-ce que yaakaaroon ne lii aussi mën na jur coow parce que yow sa bokk lébu yi ñu ngi sa ginnaaw. mom mhm. mi ngi andi des fois ay nervi fofu la nuyu pour di jéem construire. Mhm. mais li mën na andi. mën na andi musiba ci Sénégal. coow lu rëy c'est-à-dire que yi ñu ngi taxaw. léb léb euh, loolu ñu ngi sa ginnaaw parce que jàpp nañ ne terrain bi yaa ko moom yaa na ci dëgg. loolu mm-hmm. moom man teg naa sama bët. Mm-hmm. et puis des yoo xam ñu ngi taxaw ni du fi amee. Mm-hmm. Euh, moom Madiambal certes gis naa ni euh, moom li muy def peut-être da koy def ci làqatu. d'après les témoignages yi riverains yi wax ni guddi la fay ñëw ànd ak ay ay ay ay gros bras. pour ànd ak ay maçon pour ñu pour ñu pour ñu tabax terrain. Hmm. wa légui donc situation bobu narta jur jam de soxna ay. narta jur jam parce que man dama dem wouti mais bo xolé ba xol awma dara. Hmm. parce que lepp luma wara tek loxo lo xamné sama bien la man mako jënd so tegee ñi ne la no kenen mo la ko gëna soxla kenen tek na ci loxo wala li wala la hmm. mom xeyna amna lo xamné mën na ko jox jabaram. lii sama cent 150 mètres carrés la bu fekkee ne jënd na ko ci Lassana na na dem Lassana delloowaat ko xaalisam pour mu dem wuti feneen mais mënuñu nekk ci benn coow benn terrain 150 mètres carrés muy indi ay nervi ñii suul ñii di gas et tout na ma bàyyee sama alal na ko dem delloowaat ba tribunal jox ñu dëgg bu fekkee ne tribunal man la jox dëgg xayrul su fekkee ne keneen la ko jox xayrul mais man je ma me battre jusqu'au bout parce que kenn mayu ma hérité wu ma dama jënd sama xaalis étant immigré té immigré dafa metti wut dafa metti mon bu féké né jaral na ñom ñaar lu ko jaral muy l'asana, muy euh, majamal muy jabaram mais man tamit daf ma koy jaral jusqu'à la mort parce que sama alal la nit ki mëno jël yow yére bi nga sol ni. keneen jël ko sol ko chaque jour mu koy sol sa kanam té doo ko mënal dara quel que soit Alpha je vais me battre jusqu'au dernier souffle man de sec voilà donc leer je crois Aïda léegi sa dernier mot lan lay doon ci mbir mi c'est-à-dire que lan ngay xaar ci état wu Sénégal lan ngay xaar ci justice Sénégal man daal lan ngay xaar ci vraiment sa réew comme tu as dit da nga dem nekk jeune xale bu ndaw di génn Sénégal dem di liggéey di dem di ñëw euh, naam am na sax ay tolof tolof yoo xam ne amoon nga ko yu bokkul sa ak li ci say activité commerciale mm. mais loolu du objet wu tey waxtaan bi mais euh, nga dund lu metti comme ni nga ko waxee liggéey sa xaalis ñëw bëgg investir sa réew am ay jafé jafé bon ba mu fi euh lan ngay xaar ci sa réew euh, ban taxaway ngay xaar ci euh, Sénégal pour que vraiment justice mën am ñu teg lepp ci yoon. man dal comme j'ai l'habitude de dire euh, j'ai confiance à la justice parce que metti na lool xam nga koy daw presque 20 ans c'est difficile Moi je fais pas la politique je veux simplement que la justice fasse son travail mu ma sama C'est justice c'est un terrain de 150 mètres carrés mu jënd ko pour jabaram mu jënd ko ci lasana wala mu jënd ko pour ci keneen bu mi déjà au fond de lui que le terrain est pendant à la justice et que da ko jënd pour famille war na ne man mi jigen la dama defuma dara lo xam lu bon la et que terrain bobu noonu warna wax la sene na ko wat khalisam pour mu ne wouti fenen en tout en général en général j'ai confiance en ma justice je je suis fier d'être lébou je suis fier d'être sénégalaise. merci beaucoup je vous en prie. merci ok jeuf soxna Aïda vraiment li c'était important ñu def ko pour ñu leeral li nga xam mo ci xew parce que bi nga defee conférence de presse bi. Euh, coow li bëri woon na nga xam ne ci sit bi nga ko defee presse sénégalaise ñëw wuy si la euh, nga def sa déclaration sénégalais yëpp ñu ngi ciy waxtaan boobaak léegi euh, journaux yi man am na ñu ma woo ay télévision wax ne ñu ngi jéem a wut version wu Lassana Gagné Sakho mais Lassana dafa mel ni dafa dawrees ci position bi nga xam moom la ñëpp di xaar ci moom mooy mu ñëw dëggal boppam wax moom version am nan la demee donc loolu aussi c'est important pour mbir mi mën a mën quoi donc aujourd'hui nag man li ma dolli en tant que citoyen sénégalais parce que man Aïda Aïda Seck mii euh, du sama mbokk parce que Sénégal wax fi dafa jafe soo waxee souvent dañ naan ndax mbokkam la ndax am na ci intérêt ndax am na ci leneen man Aïda Seck ak Mamadou Ndiaye ak kenen la yemale man réew mi moo ma ñor fii du ma fi seetaan ñu fiy jaay doole kenn sànq rek maa ngi ci biir waxtaan euh, euh, Ousmane sonk mii ñu bari su ma nee bokkuma partem da leen di jaaxal parce que dañoo gis may taxaw ci dëgg parce que damaa gis ñu koy jaay doole rek bis bu ñu ko noppee jaay doole ma pare ci moom bés bu ne dama koy ma ne ko Sonko bis bu la gaa yi jaay doole dootuma la tudd pare naa ci yow leen lay jaay doole moo tax ma taxaw sa wet bis bu ñu la noppee jaay doole pare naa ci kon soxna Aida Seck dañ koy jaay doole ma gis ni benn gang ñoo fi nekk àndandoo lënkaloo. di jaay doole euh, jigéen joo xam ne Sénégal gi la dëkk dem liggéey bitim réew mérité liggéeyam nga xam ne bitim réew ku fa dem man dama fay dem gis sénégalais yi suba teel la ñuy jóg di dugg ci métro yi di wàcc di dugg ci bus yi di wàcc fu nañu fay dem di lijjanti di liggéey ba am seen xaalis di ci teral seen njaboot di teral seen bopp maintenant nga def ko nag ñëw ci réew mi bëgg fee investir ñu bëgg la fi jaay doole man soo ñëwee jooytu ko ci man indil ma ay preuve parce que man moom ay Aïda Seck ba léegi nii sax ma fu mu jëlee sama numéro mais bi ma wooyee dama ne ko ñëwal ñu toog ñu wax parce que man ay waxi kese duma ci basé wu booy ñëw indaaleel ay kayit parce que man du wax ci waxi kese ci ay kayit laay basé wu bi mu ñëwee mu génn ay kayit won ma mu daal euh, leer nàññ ma ma gis ni kii li muy wax lu leer nàññ la loolu moo tax ma dugg ci coow li léegi nag. moom Aïda Seck bo xolé ci ay këyitam dafa leer nañ ni 2001 le jënd terrain lool déjà yàgg na lool parce que 2001 léegi presque def na 22 ans nga jënd say terrain yo xam bang koy def yaangi bitim rew di liggéey jël sa xaalis investir ko ci souf bi nga ko investir ci souf ñu ñu jox la euh, say beau parce que fofu déjà mom bi ci li ma liir ci document yi ma jox yépp bi nga tuké euh Mm, autorité locale yi nekkoon ngoor defoon nañ sax ay njuñ njaaj dem jël say terrain dem affecté ko ñeneen ci loo xam ne ay tappale la mais loolu moom comme amuloon benn problème parce que jugement yaa ngi nii tribunal moo ko rendre ay tribunaux parce que coow li déparé wul ci Lassana Gagny Sakho man bi ma xoolee tous les yi nga moom la fourni bi mu jëndee ay euh, ay njëkk nañ ko koo xañ parce que xam nañ ni mu ngi bitim réew parce Sénégal boo fi yoree alal jum mën a doon boo nekkee bitim réew gars ñu ngi xool nu ñuy jaaree sa kaw des fois sax say des fois say xarit des fois ñoo xam dañoo am doole ci nguur ñoom ñooy wuti pexe pour foqati sa alal loolu am na ci réew mi ñu bari ñoo xam dal na leen. léegi nag loolu bi ñu ko jéemee jël ay terrain ñoom booba ki fi nekkoon maire ci ngoor dem wut ay tappalekat ñu dem jox leen terrain yi ñenn sax jël terrain yi dégg naa ci niñ ma jox ci samay information parce man tamit damay am ay information Aïda am na sax ñu ci demoon màkk ca ca dem jaay terrain yi dem ci màkka <laughs> yooyu yëpp am na fi loolu bi mu amee justice ni leen yéen ngeen def tegu leen ko fenn parce que mille 2001 la jëndoon terrain yi di décision yaa ngi nii kenn ku ci nekk ci ñoom justice daf la député ñu ngi nii décision yaa ngi nii ña defoon loolu ci ci ci ci ci ci huit euh, euh, huit boo yi nga xam ne si moom mii Aïda Seck moom moo ko moom moo ko jëndoon mi ngi nii ñoom ñëpp seen i décision ngi nii mën naa ko liir sax turi mais amul njariñ justice teggi leen benn par benn leen yéen ñi leen ko defloo ak yéen li ngeen def dara jaaru ci yoon ba ayda ay terrain dellu ci ci ci moom naam ba léegi am na benn wala ñaar wala ñett yoo xam ne jéem nañoo def ay ay galgal te loolu j'en profit pour wax les surtout de l'État surtout waa DGID waa service des domaines ku ci laale ci ay tappale parce que réew mi ci leer la jëm réew mi nag actuellement ci tappale lay dox mais ci transparence la jëm parce que sénégalais ñoo bëgg mu dox ci transparence képp ku fi def lo xam du yoon bu réew mi délo ci transparence dañ koy tégaat ci yoon té boko ko ci ab immeuble wala nga def ko ci lenen nga jël alalu jàmbur nga def ko ci daan ko jaay ci sa kanamu njaboot nga nga torox képp ku fa nek nang ko nang ko tek ci yoon lépp li nga xam ci mom alalam moko jënd depuis 2001 yore ay bom. mëno am bo ci ab terrain euh, un bail ci ben terrain ba nopp ñu dem jox kenen mu amat ci bail lool mënul nek loolu lu tappale yi bari bari bari loolu mënta nekk kon ayda ayda mënta am bàyyi ci ab terrain ñu toog ba mu neex leen ñu dem mel ni ku koy soppi pour jox ko keneen loolu mënta nekk loolu ku ko jéem tamit ci ay musiba ngay jéem d'ailleurs et j'en profite pour euh, féliciter le gouverneur parce que à l'époque bi loolu amee moom bi mu jëndee ay terrain ñu bu koo jaay doole mu dem tribunal tribunal fokkarti lépp delloo ko mu am ay tendeefal yu am ci biir service des domaines à l'époque le gouverneur lettre bi ma dit. di gouverneur lettre bi ce ci respect des droits acquis par madame Aïda Seck le gouverneur le 31 mai 2019 le ko gouverneur daa monsieur le directeur le directeur des domaines de Dakar suite aux réclamations répétées de Mme Aïda bénéficiaire de huit baux sur les lots 674 675 676 677 bit 677 678 679 680 695 a un sax c'est normalement qu'elle a acquis à titre onéreux depuis 2001 dans le cadre du lotissement de Ngor extension joxe TF numéro 57 57 57 DG devenu TF 2132 je vous transmets ces requêtes du 16 mai 2019 et du 31 mai 2019 Je suis victime d'un retrait d'affectation dédié l'eau par le maire de Ngor sans notification ñu ay terrain gouverneur m'a et sans le respect de la procédure Mme Sec madame avait saisi la justice qui a ordonné la restitution de ces parcelles Je me may la justice gouverneur di leen ba mu demee justice justice delloo na ko terrain yëpp ñu ngi nii ay décision de justice lañ mën naa leen jox tur yi ñu leen ñoom ñëpp ñun ñi nga xam ne ay tappale la leen joxe woon terrain yii ma fi lim. mun moom gouverneur ni leen ah comme man yoon laay doxal yoon delloo na Aïda Seck te euh, terrain yi parcelles yi wax ne moo ko moom yéen waa domaine tënku leen ci yoon loolu la lettre bi wax daane leen. les conséquences de cette situation mon gouverneur m'a dit, donc pour ma base de cette situation Bob le chef du bureau des domaines de Ngor Almadi a entamé la procédure de régularisation parce que lañ defoon comme ay tappalal justice nee hey y terrain des ñu jox a leen ko parce que depuis 2001. Euh, ce qui a abouti partiellement à la restitution de ces cinq parcelles mu par cinq parcelles yi l'eau nañ ko mais il y a des gens na gaaw parce que par contre non seulement les trois parcelles restantes n'ont pas encore été restituées mon gouvernement dit que parcelles domaine car le chef du bureau des domaines de Almadi avait saisi votre prédécesseur pour la saisine obligatoire de la CCOD Monaco ce qui n'a pas été fait mais pire la parcelle numéro 679 dont le bailleur euh, dont le bail au profit de Madame Sek, était établi depuis 2001 la ci amoon bail comme nous l'avons ko amee ci parcelle 679 a été attribuée à une tierce personne pas eu ngeen parcelle 679 bi a un domaine bu Ngor ngeen dem affecté ko keneen mu ne loolu tegu leen ko fenn gouverneur a wax en résumé mon gouverneur mon la dame Sek Aïda Sek continue de réclamer ses bouts sur les lots 676, 678, 679, 680, comme le confirme l'attestation numéro 462, etc. du maire de en sa qualité de président de la commission d'attribution. Les on en conséquence. kon on a ci lolu lolu je vous serai gré de bien vouloir instruire vos services concernés pour faire cesser cette situation injuste que subit depuis des années la dame Aïda Seck gouverneur moo bind lii mu ni kon nag li nga xam ne ay métital la yu ngeen teg Aïda Seck ci ay at yu bari yéen service yi koy def arrêté leen te ngeen bàyyi doomu jàmbur ci lii mooy situation léegi nag loolu mu yore kon mu moom ko lii depuis 2001 mu moom ko mu leer naññ même lan ca jéemoon justice dindi ko ni moo moom loolu tey lañ bëgg a taxaw parce que ni mu ko nettalee am na koo xam ne wóolu na ko mu tudd Laasana Gaañi sa euh, Saaxo mu am ko boole ak moom ñu dem toog mu dem toog ak avocat am maître Camara nga xam ne moo doon avocat sax euh, euh, direction bi nga xam si moom la na Gaañi Saaxo doon jiite muy ONAS ñu waxtaan ku yore sa xaalis gis koo xam ne dafa bëgg liggéey mun nga ànd ak moom liggéey loolu yoon terewu ko mu ne moom d'accord na pour ànd ak moom liggéey mais xaalis doo ko yore rek denc ko wala nga yore alal doo ko def dara booba même bu yorul xaalis cash mais yore na alal parce que suufu ngoor ku ne xam ne ne ko yor la réew mi nag suufu ngoor yamul ak suufu kiir joom man am naa ay tool kiir joom ak euh, ngay jawaar euh, euh, daqaar gaynde ci nguma ngeewul mais suuf yooyu amul doole suuf soosa munuma caa am xaalis mais ki nga xam ne daa am suuf ngóor almadi <laughs> non mais loolu du caaxaan ku am suuf am nga am nga xaalis léegi moom mu ni ko kon man am naa sama suuf yow Lassana Gagny Sakho nee nga am nga xaalis nañ lënkaloo loolu mooy lënkaloo tubaab di ko wax partenariat ñu def SCI maanaam ñu tabax sunub immeuble boo xam ne dañ koy def huit étages bu ko defee man ma andi sama suuf ku ne xam na ni trois cent mètres carrés ngoor surtout ñoom place boobu ñu am jàkkaarloo yéen sénégalais yi xam ngeen ngor mais ku xam immeuble Philip Maurice ñu jàkkaarloo ñoom ñaar séq tali bi xam nga ne foofu du suufu caaxaan foofa ku fa am cent cinquante mètres carrés boo ko wanteerul lu mu gàtt gàtt mën nga ko jaay cent quatre-vingts millions ngor amul fenn foofu mën a am cent cinquante mètres yoo xam ni danga nga koy jaay muy muy yées cent cinquante millions bu dee xam nga.

li may wax ni ñiy liggéey ci suuf ak di liggéey ci mbirum foncier xam nañ li may wax waa léegi ay ay da andi loolu léegi moom laa sana gàññi saaxo war a andi xaalis boo xam si dañ fay tabax nag immeuble bi léegi ñoom ñaar kon ñu waxtaan moom nag laa sana gàññi saaxo ne ko léegi 300 mètres carrés yooyu 150 bi boobu la boobu la ndëgg sërëx ba commencé mais moom mënu ko woon xam parce que Baba dalal na seen xel ñoom ñëpp dalal na xelam moom mi dalal xel xel ah, xelu avocat bi maître Camara dalal xel également ki nga xam si mon moi moom euh, architecte bi nga xam si moom moo leen defaral plan yi plan 3D parce que su demee le plan 3D ci architecte mais nous teg ko day wane ni encore mi ngi def lu sérieux parce que immeuble du caaxaan pour nga mon ko teg dafa am ay yoon jaar da ngay am souf su ñong so amul xaw amul ben coow ba nopi am alal joko defé ba nopi également am architecte bo xamni mom mo lay mom lay defaral plan yi ba nopi nak construire la jaar yoon donc lool moy tax nga am immeuble yi boko ko boolee am immeuble ku am souf su lew am ku am souf su lew am xaliss comme néna amon na xaliss bu mu ko défaré am architecte bo xam si man na construire defaral la plan yi defaral la lépp ba noppi taxawul la liggéey bi mais am nga immeuble loolu immeuble waaw léegi kon kii xelam dal mu dem ba mu ne ko mu ne ko nag léegi ñëwal nga sédde benn cent cinquante mètres carrés bi parce que bu ñu ko séddewul duñ mën a tabax liñ bëgg a tabax cest à loolu ci procédure bi la bokk foofu la tege euh, escroquerie bi loolu mooy escroquerie maanaam ne ko nañ ko bind rek ne danga ko koo sédde que loolu ci procédure bi la bokk. booba la tegal ndëgg sërëx soxna Aïda Aïda bo défé ko daan mu ne ko nak légui c'est dans le cadre de la réalisation du projet ka ngay séddee benn 150 mètres carrés bi loolu tax Aïda d'accord mais Aïda jaayul terrain manam dajewul ak Biram Gajaga rek ne ko kay ma jaay la sama terrain jaay ko la laasana gaañi saaxo parce que da ko jaay ñu def benn transaction pour mu jaay ko terrain bi la laasana dem def ci lu ko neex loolu de dani ko da ngay joxe ma joxe mais sa sa 300 mètres carrés da nga ciy jël 150 mètres carrés yoo xam da nga koy dugal da ma koy dugalal ci biir projet bi mais da ngay wax ne da nga da nga ma ko seet da nga ñu ko seede ñun euh, ñun euh, SCI Soninkara waaw léegi pour dëggal loolu lépp léegi moom mu d'accord ci loolu lépp moom euh, la Sénégal ñu saaxu waa léegi immeuble ba léegi anam. bu dee dans le cadre de la réalisation du projet moo taxoon ñu ñu ñu def partenariat bi léegi immeuble ba defaruñ ko ba noppi yow ñu téye sa terrain cent cinquante mètres carrés ni dama koo jënd te yow mënoo génne benn preuve ni da nga koo jënd amul benn reçu bu Lassana Gagny Sakho mën a génne buy wane daa jënd parce que SCI Soninkara bu dee dafa jënd structure la structure buy jënd waxuma la structure mais nit rek buy génne xaalis bu mat ay millions mais day am këyit mais ay millions kenn ko génne ci wax caaxaan. man sama jabar sax comme léegi loi bi moom euh, Sénégal ay tappale lañ nee nañ diggante jabar ak euh, ak jëkkër amul ay amul ay ay ay ay vio ay vol vol amul sàcc nee nañ sàcc amul seen diggante maanaam bu sa jabar lekkee sa xaalis yooyu yëpp ay tappale la man damaa gëm ne sàcc war na faa mën a am mais nag loi bi moo wax loolu léegi moo tax man sama jabar tey jii su ma ko doon jox xaalis daf may bindal këyit day génn këyit ñu dem ci kanamu notaire mu bind ma bind parce que wóorul man loolu laay def maa ngi koy wax sama mbokk sénégalais yi fii réew mi loi yi fi nekk daa bëri tappale de même sa jabar boo koy jox xaalis dem leen bindu ko moo gën a wóor waa léegi yow laa sana gaañi saaxo nan ngay mën a génnee nee nga soixante quinze millions yoo xam ne da nga koo joxe ci turu Soninkara société bu tudd Soninkara boo xam ne yow nee nga moom moo doon waroon réalisé affaire bi waa léegi yow te amul benn chèque amul benn preuve de virement bancaire amul ben décharge amul ben reçu buy wane sax yow jox nañ la ben million mais lolu quand même sénégalais yeen buñ len ko waxé sax war ngeen xam ki kii ab tappalekat la. kon nak légui la Gagny Sakho lu ñu ko wara a wax moy na génné ben preuve Der, lolu motax justice pour bañ jël risque c'est ça qui a fait que la justice pour ne pas prendre risque mu jël mesure conservatoire ban mesure conservatoire la jël ci coow dani ordonnance référée. référé ordonnance référé référé mon juge c'est le juge des brefs délais à cela, à tête, ci le gaaw parce que su gaawul musiba pas mon am moom le juge des référés dafa àtte athée. bi le la ko dogal dogal bi am le 21 août 2020 le 21 août 2020 le juge des référés lan la dani vu au fond vu l'ordonnance de subordination en date du 29 janvier 2020, ordonnons la discontinuation des poursuites jusqu'au paiement de la somme de 150 millions francs CFA par la SCI Soninkara. Mettons les dépens à la charge de la demanderesse. Donc, moi, comme nous avons le parfum de l'escroquerie e de l'abus de confiance maanaam wóolu nit jël sa alal jox ko parce que lim la woon doy na la nga nga dem ci ak xel xel xel mu sell ak yéene ak wóolute nga jël sa alal teg ko loxoom parce que li ngeen waxtaanee jàpp nga ne loolu dina ko def ndeg moom deful loolu justice bi nga xam si ñu ngi soupçonné ni kon am na affaire bu ci leerul justice ñoo ne ko yow bala ngaa mën a def dara ci terrain bi isoleel ñu ñëwal déposer.

mooy ñu yàkkamti mais ku yàkkamtiwul moom am 150 mètres carrés Ngor dañ ko jaay 150 millions donc justice day diggu dóomu laajul 200 millions laajul 190 millions mais ku ko fay jaayee 150 mètres carrés mën nga ko faa jaayee terrain bi fi mu placé man am na bi ma ci defee sorti keroog bi ñu defee sa conférence de presse ci terrain bi am na ku ma woo ne ma terrain boobu ku yàkkamti bu ko soxla woon tey boo ko laajee 190 millions 185 millions mu jox la ko parce que terrain fi mu nekk baax. kooku du terrain bu yaa wuyaa de ci dafa ouf tali bi la rue principale la ouf. nek ci kaw tali bi jàkkaarloog immeuble flip Maurice nga xam ci immeuble gëna siw fofu la bok Ngor fofu du tiaxan jege rond point bi fofu lo fofu ku fa yor sa terrain loo ko bëgg a jaay man nga ko jaay léegi motax justice xamni fi ciow la nar am te waji wonu len lu leer justice soupçonné won na gis nga décision justice bi limi woné wane justice wóolu wuñ la Sénégal ñi saxo xam nañ amna lu ci leeru ñu ne ko kon bala laal millions waa 150 millions yi laa ça, gaañ ko terrain mais pourquoi mu ne jaay terrain moom yow moom sa yow ko am nay ci pourquoi parce que Madiambal Diagne moom Macky Sall ñoo nguur gi lu ko parce que chaque lundi de chaque lundi je le lundi de Madiambal Diagne loolu rek lay def deful leneen lundi bu nekk mu bind ci chronique am saaga Sonko ba doyal lu mu koy jënde lu def dara da ko ci fekk lii rek la Madiambal Diagne xam ne terrain bi am na coow Lassana Gagny Sakho wër fu nekk jéem a jaay terrain bi munu ko jaay mu dem seeti koo xam ne mën na ko jaay mu jënd xeex bi maanaam comme xam nañ day ñàkk mu dem jaay xeex bi da koo jaay Lassana dafa dem jaay xeex bi da koo dem jaay koo xam ne yaakaar na ni moo ko ëpp ay entrée au palais mu dem jaay ko kooku Macky Sall waru ko nangu kenn waru ko nangu ndaxte ëllëg moo tax donc li ñu bëgg mooy kii ñu jàpp ne amu fi mbokk amu fi dara jigéen la dem na toog Europe liggéey na ba sonn léegi kii bu ñëwee bu ko tegee pression bu yàggee mu sede léegi nag ku gis soxna de Seck mi xam ne parewul pour sede kii bu ko naree rey ci terrain bi daan ko fa rey ci terrain bi. parce que parewul pour di bàyyi alalam ni di ko foqarti mu fay romb bés bu nekk di gis ni terrain bii maa ko moom sama alal ñu foqarti ko ci sama kaw kooku kenn du ko nangu. kon Madiambal Diagne li mu jënd moom ci moom xam na ne jëndul yoon dafa jënd loo xam ne ay tappale moo ko lal te lépp wane na à travers la procédure que terrain bi Madiambal Diagne ki ko jaay moomu ko moom laa sën a gaañ saako donc jabaram la ko jëndal moom Madiambal mais jënd na lu mu xamul kon léegi. Madiambal Diagne jaay dooleem bi muy def nag di dem di yóbbu ay nervi ci terrain bi bu guddee di fa jéem a tabax kook ay coow la fi andi parce que déjà coow la commencé na ndaxte semaine passé ñëpp gis nañ jeune ngor yi dem mobiliser wu nekk ci ginnaaw Aïda Seck dem suul lam fa gasoon parce que nag loolu c'est du sérieux parce que 200 jeunes taxaw ne lii du fi amee ñu dem suul la nga fa defoon boo xeexee ak ñoom musiba lay jur donc li nga xam ne moo am mooy Madiambal Diagne na wut jàmm wut jàmm mooy na dem ca Laasana Gaañi Saaxo mu delloo ko xaalisam mu bàyyi Laasana Gaañi Saaxo mu mu xëccoo parce que Laasana xam na ne bu xëccoo day ñàkk lii mooy dëgg kon nag moom Madiambal daa jënd xeex bi mais xeex bi mu jënd lu ko état jàppale jàppale jàppale xeex bi mënu koo gañee wala bu ko gañee tey bu subaa dina ko ñàkk bu fa tabaxee loo xam du yoon. ci ku xam lépp ak ni mel suuf surtout suuf su moom su leer ju mu amee këyitam ay mbokkam yëpp nekk ci ginnaawam ma Diagne ci xeex bi mënoo koo gañe boo ko gañee léegi bu subaa da ko ñàkkaat te boo fa tabaxee sa alal yaa ngi koy tabax ci erreur actuellement d'ailleurs dal na ko ma Madiambal Diagne fépp fu am coowu suuf ma Madiambal jaañ a ngi ci Madiambal Diagne bërki démboo Njaay la fa jàpp jàppante ak Cheikh Tidiane Diagne bu nekk euh, Canada dem tabax pro R plus 3 dem tabax ci terrain jàmbur

colonel euh, bi nga si moom mooy jiite Descos dem toog di def conférence de presse di défendre Madiambal Diagne moom lu ci yoonam moom ñëw yow ngay kilifa ah ñaari civil jàppante te yow surtout ki ngay défendre moom moo gën a nekk ci tappale yéen bi ngeen ko waxee arrêtel ne serait-ce que sax moom daa dem di tabax lu ko neex parce que moom ne déjà cent cinquante mètres carrés yi nga xam si moom la wax ne moom la ko laa Lassana Gagny Sakho jaay moom la mu fa gas ëpp na loolu ma ngay laal côté bu ko neex waa léegi yow na serait-ce que loolu ngeen war koo arrêté yéen waa Descos comme mbir mi am na coow te léegi soxna Aïda Seck wax na lu leer nee na ab euh, euh, euh, audience bi nga xam si moom la tribunal woote woon la cinq juin jul am ndaxte daa amoon ay coow Sénégal mooy xeexoo yi amoon Sénégal ci mois de juin bi ci coowal Ousmane Sonko ci ak ay condamné nañ ko duñ ko condamné léegi coow loolu moo taxoon ñu dàq audience bi audience du juin. ba le 12 juillet waa léegi yow commandant euh, Descos colonel Ndiaye nga xam ne yow euh, loolu am na ci yaa ngi déglu ñaari parti yëpp au lieu nga ni non nañ arrêté lépp ba justice àtte defoo loolu di taxaw ngay def conférence de presse di défendre Madiambal Diagne mais non quand même man franchement je n'y comprends rien du tout ça c'est pas le rôle euh, de la Descos Descos loolu du rôle am rôle am xam nga Descos et j'en profite pour wax état Sénégal Descos nañ xoolaat texte Descos ñu gën a dooleel Descos pour que Descos di mën a liggéey guddi parce que le vrai problème aujourd'hui du Sénégal ak tappale yi am ci suuf ñu bëri ñu ngi tabax guddi parce que Descos duñu génn guddi parce que loi bi may leen ñu génn guddi ñu bëri ay nervi la ñuy jël ay sites yu bëri ay Tivaouane pël ay sangal kaam ay jam Diamniadio euh, ay Ngor foo dem. coow la fa am mooy guddi ki moomul terrain bi day bàyyi ba guddi muut ay nervi indi ay mason di tabax parce que bu toppee guddi gi taal ay projecteur am bu démarré guddi gi di liggéey ba fajar day liggéey lu bari bu ko defee immeuble ba dana taxaw loolu te boo laajee waa Descos dañ naan la ñun suñuy texte may ñu génn guddi kon nag jot na pour ñu réformer texte Descos pour bàyyi gendarme yi nga xam ñoo nekk Descos ñuy génn guddi di si yone fu ñu leen signalé ne am na kuy tabax guddi parce que képp kuy dox guddi mooy di tabax guddi mooy li ngay def leerul kuy kuy def lu leer da ngay tabax da ngay tabax bëccëg ñëpp gis la. ñun bi ñu nekk xale dañ daan wax booba ñu ngi tabax stade euh, amitié bi ñu ne chinois yi bu ñuy tabax guddi gi lañ koy tabax parce que bugguñu xam <laughs> nit ñi xam ni ñu koy defee parce que ñoom bu ñu ñëwee duñ def transfert de technologie kuy def lu leer doo ko def guddi. bëccëg nara kam ngay def li ngay def donc kon jambal jan di dem gudi fofa defa fa tabax rek waron taxaw taxawaay yen wa deskos ngeen arrêté ko mais nak defar conférence de presse pour di défendre jambal jan ko xel munu ko nangu kon encore une fois dal fini teje moy sek soxna Aïda sénégalaise la dem bitim rew liggéey xaalisam mo lew ko dom ñun li tax ñukoy jappalé du lenn du taxu ci deug parce que deug rek mo na ñor ñu dégloo ñi nga xam ne ñëpp ñoo laale ci mbir mi muy moom muy ñi nga xam ni euh, ñoom ñoo fekkee lettre gouverneur bi ñu déglu également euh, architecte bi nga xam ne si moom moo moo yore woon euh, liggéey bi lañ waajaloon liggéey parce que liggéey bi mujjul am maanaam lañ mébatoon def ñoom ñi ko séqoon yëpp boo leen dégloo da ngay gis ni kon Lassana Gagny Sakho la mu digge woon defu ko lam waxante woon ak ñoom defu ko kon nag na état Sénégal jël ay responsabilités parce lii day tax. investisseurs yu bëri ragal bu dee da dem ba sa waa réew ñoo lay def lii kon ku jóge bitim réew Sénégal du fi ñemee ñëw kon nag Sénégal lii bu ñu bàyyee mu jàll day tax même les investisseurs étrangers dañuy ragal parce que bu ñu demee ba yow sa waa réew man laa def lii kon ab jàmbur bu ñëwee daañ ko def euh, lu lu ko yées kon lii day tax. économiquement baaxul pour Sénégal que ñuy bayyi nit ñuy foqarti alalam jaay ko doole état Sénégal sétane les structures de l'état sétane justice Sénégal sétane desco sétane ñepp sétane ñu jaay ko doole lolu jaaduwul te mën na jur euh, musiba parce que waa wa Ngor les jeunes de Ngor lu mat 200 jeunes de Ngor ñëw taxaw ci ginnaaw Aïda Seck ak ay mbokkam ak ki jegeñaalem ñoom ñoom ñu taxaw ne terrain bi Madiambal Diagne du ko tabax parce que moomu ko parce que xam nañ ne Aïda Seck moo ko moom parce que depuis plus de 20 ans ñu gis Aïda Seck jënd terrain bi te këyit yëpp wane ne Aïda Seck ko moom te amul benn këyit buy wane ne moo jënd kon nag nañ ko teg ci yoon ñu delloo soxna Aïda Seck terrain bu ko defee ñu dëfale ko parce que tooñ nañ ko lii laa amoon lu ma ciy wax Euh, di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne nañu wut jàmm parce que réew mi jàmm moo nu jik parce que bu ñu fi euh, andee musiba bu ëllëgee ñun ñëpp mën nañ ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam.